السلام عليكم ورحمة الله باكي نيغ لين دي لين زيار دان بالحق نان بروم سبحانه وتعالى بولين جيغل تاي داني ام لمحات مي اي سيتلو تي بن ايه قرانيه دي نيكو وجدنا ان تقوى الله هو اعظم اسباب الرزق وتفريج الكروب كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب في سوره الطلاق ay seetlu la ci aaya alquran euh, yàlla subhanahu wa taala di wax naan képp ku ragal yàlla dinañ ko lépp lu mu dugg dañ ko ci génne lépp lu mu dugg rek dañ ko ci wutal porte boo xam ne ci lay génne lépp loo xam ne lu dagan la ku ragal yàlla ci lu dagan rek lay nekk incha allah te it dañ ko wërsëgale fu mu ko foogewul lañ cay dégge mooy ndekete ragal yàlla mooy li gën a gaaw pour muccal nit ki ci ay jafe-jafe ay jafe-jafe ak i xat-xat bu nit demee ba mën a am jafe-jafe yu ndaw yu teer ci àdduna ci wàllu ay seeyeg yu kenn xamul ba mu dem ba rey xaru maanaam yamul ci rey boppam rek waaye reyaale ay njaboot kooko manque tawxiit moo koy def ci nit ki ñàkk yëg yàlla ak ñàkk a bàyyi xel yàlla waaye jullit bu dee bàyyi xel yàlla day ragal yàlla dara du ko jàqal lu ñëw de woyof ci moom lenn rek kay diis ci moom mooy dugg dee dem sa safara dee sax du ko ragal lépp lu naturel lay doon ci moom moo tax lu mu dugg rek yàlla nana ko ca génn jafe-jafe yu ñu teg ci kawam it yàlla moo koy muccal boo ko liggéeyee du ko jàpp boo ko defee lu bon wala nga kortu ko wala nga def ko yu bon du ko jege parce que yàlla moo koy aar moo koy yiir yajal lahu maxraja kon li gën a wóor gannaay bi gën a wóor gaa yi mooy ragal yàlla buñ ko defee rek yàlla muccal ñu ci mboolem yi ragal di ko daw yu kenn xamul te it fuñ wërsëg fuñ ko soxlaa fuñ ko fàggoo rek yàlla defal ñu ci incha allahu taala lu kawe suñu njort ba pare dañu ko dikkee foo xam ne foogee wuñ ko ragal yàlla mooy def loolu ci nit ki kon ñu ñu ñu góorgóorlu suñ bopp di bàyyi xel yàlla yàlla mboole ñu ci ñu ko ragal incha allahu taala qul qawli hada wa astaghfirullah al azim li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh